numéro téléphone yi nekk fa. Hmm. préfet wala gars yi bu ñu bëggoon lu normal dañ ñëw ba si collectif nañu. def ngeen seen pré-recensement wax leen nit ñi ngeen ñu contrôler lii wala ñu dem ba préfecture. ku def pré bii collectif bi moo ko def. collectif bi ci boppam moo def. pré-recensement ko def. moo def pré-recensement bi. d'accord kër numéro yi kër goo dem. te bu ma la ko joxoon boo boo demee di. visiter sa bopp kër par ngeen ko. numéroté nañ ko. Hmm. yow gis ak seen numéro téléphone. kan moo leen ko santoon. le le préfet Fodé Fall commission moo ñu ko santoon. d'accord jiite ko préfet moo ko jiite woon. ndaje ndaje bi présidence kan moo fa teewoon. teewoon euh, kii moo fa nekkoon euh, euh, kii nu mu tudd sax Demba Diouf. mooy kan directeur cabinet adjoint ak le maire Talla la le conseil spécial du président dañ koy sant di ko gërëmaat. ndax bi lacrymogène di tàkk dafa xuus lacrymogène ñëw ba ci ñun dalal ñu. dalal suñu xel nit ñi taxaw ñu dem mu dalal suñu xel moo war moo moo sabab. kii boobu il faut reprendre la parole. <laughs> parce que c'est waay non non da ngay non non non Pape man. Mm. mun nga jox keneen kàddu parce que quand danga da d'accordul ci li mu wax kañ. non malal defal naa c'est-à-dire lui. Mm. son argumentaire ne tient sur aucun aspect concret. Mm. ay Talla Sylla xuus na fii ñu ngi koy gërëm Macky Sall lañ doon addiyaalal tel tel c'est-à-dire pour quelqu'un qui habite quelque part li ñuy xaar mooy que tu don ay argument yoo xamante ne mooy wane ni kër yi ñu toj teguñu ko ci yoon teguñu ko ci yoon non c'est-à-dire on hmm. attend que tu nous ñun dañu jënd ay kër joxe suñu xaalis am këyit nguur ñu fa jaay ñu doole daaneel suñu mm, kër. voilà yow su boobaa ñu xam yow da nga yàkkamti. non su boobaa ñu xam ne yaa ngi dund injustice mais dans ton argumentaire tu commence déjà par diir oui vraiment may nañ président 1500 signatures c'est-à-dire c'est comme si on octroyait. Mm. à des militants du parti. à des gens qui ont soutenu le président pour pour pour pour parrainage am xaw ma pour lanam. Mm. on les récompense ci ay terrains yu amul këyit. c'est-à-dire loolu la ñuy dégg. non non c'est pas ça jéeme xaaral jéeme xaaral rek jéeme xaaral. non malal jéeme xaaral ni nga waxee. jéeme xaaral jéeme xaaral dajale wuy ma wuy ma. dafa ma dagg noonu ma dagg. waaw Yërim man dama expliqué kii tamit dafa fekkee. dafa fekkee waaw man kii kii man dama expliqué waaw dañuy waxtaan jàkkaarloo la waaw jàkkaarloo la man dama doon expliqué. jàkkaarloo <laughs> la boo jéem a fi nga dugg baaxul. dama expliqué fi nga <laughs> dugg baaxul. non dama expliqué mu dagg ma. pale day dindi man dënnu ma man. man man man man si ma nekk. man dënnu ma bi ngeen di ñibbi on ñaata lañ leen may paas. <laughs> joxuñu ñu dara. Hmm. Ah, ñun defuñu politique. malal ñun defuñu politique. Hmm. man xam lan moo ma soxal. sama quartier sama koñ. man defuma politique. comme yow xam nga ma. musoo maa gis Thiès. Hmm. ma taxaw politique. te wóor na ma bu ma taxoon yëngu. am dara damay am dara parce que man sama koñ. ah mais mais non non non ma politique man li muy wax man waxuma de. oui d'accord nañ dégg nañ la ok. mais ku def lu baax s'il te plaît man ànduma ak président man ànduma ak président dafa def lu rafet def lu baax. ah ok jéeme c'est la même chose. jéeme d'accord dégg nañ dégg nañ. mais moom ma dégg loolu léegi dinaa ñëw li ñu ñëwee ci jéeme mayal gars yi ñu mos mayal kii laay njëkk may débat wala ma jox. Ah, yéen non non mais non non mais yi muy wax ni ay waxu dóorkat la. non dégg nga ah, mais non non non xam nga lu tax. xam nga lan moo tax xam nga xam xam nga xam nga xam nga lan moo tax. wax dëgg yàlla. après nga teggi tuuti nit ñi aussi euh, nit ñi am nañu ay cordes yu sensible mm. gis lu injuste. oui c'est c'est du sérieux ñu wax ko mais aussi lu injustice am par rapport ak yéen li ngeen li ngeen li nekkee am na wax yoo xam ne boo ko commencé wax. te nga ne yow yaa jiite collectif bi parce que problème bi gën a rëy muy que comment ay nit yu dëkk ci benn quartier ku ne war a xalaatal sa bopp war a choisiral sa bopp yow nga mën a jël quartier yëpp dajale ay signature ci parrainage jox ko benn benn benn parti xam nga déjà tu as tout faux parce que ñi nekk ci kër yi ku nekk war nga mën a tànnal sa bopp ki nga war a tànn ban quartier moo am par rapport ak xam nga li ma la bëgg a wax c'est hmm. c'est quand même c'est xam nga aussi boo leen di boo leen di kaas da ngeen di da ngeen di da ngeen di xam noo leen di kaas boo leen di jiite ay collectif ak yooyu di wax ñi ngeen di waxal tamit du ñu ay dof parce que boo commencé lool sensibilité yi ma amoon par rapport ak sa problème yëpp dama koy commencé teg fee parce que dafa mel ni da ngay marchandé def nañu lii dañu war a def lii mhm. parce que yow donc seen seen choix wu quartier dafa des rek ci téye kër yooyu te téye kër yooyu est-ce que kër yooyu ngeen di téye en mhm. réalité ci yoon ngeen ko teg mhm. parce que aussi lu ñu mënti wax kenn bëggul kenn toj kër kenn mais ni kër amee valeur ci almadi bi noonu la ko amee ci mbuur bële. Mhm. parcelle parcelle la bu ñu def titre foncier day am numéro. bu ne ak si ak ak ak ak ak ak ak toutes les informations donc aujourd'hui li ñu war a njëkk a wax mooy convoquer fan la yoon nekk dans cette histoire là. Mhm. parce que bu fekkee dañu nekk ci benn dëkk boo xam ne aussi dañuy dañuy convoquer que corps de sensible yi. Mhm. ah te du ñu du ñu wax benn yoon li nga xam ne moo moo moom la yoon wax. li nga xam ne moom la état moom wala nit moom pour man dañuy dañuy dañuy déjà raté raté raté affaire yi quoi. Mm-hmm. yëriñ mooy. voilà jéeme man bi ma gisee image yi vraiment sama yaram daw na gis naa benn jigéen ndeysaan boo xam ne déggu Wolof wax wax ju doy waar. Mm-hmm. mais bi nga ñëwee wax dama am mbetteel vraiment ndax euh, dafa mel ni yéen da ngeen a ñëw rek jël fàq dëkk dëkk foo xam ne amul leen ci benn droit ba pare <coughs> bëgg koo ngembal ci politique pour mën faa toog yooyu maanaam daal. ëllëg boo fekkee da ngay communiquer dama lay wax rek il faut nga xool ni ngay diriger sa communication benn deuxièmement Macky Sall mooy président de la République mais moomul suufu Sénégal foo nga xam loolu boo réunir doon un million de signature tey te charte yi nga xam ni moom la loi wax pour nga jaar ci pour am kër jaaroo ci doo am kër c'est ça le problème euh, suuf <coughs> Sénégal ci ñaari anam rek nga ko mën a amee te ñaari anam yëpp notaire lañ parce que conservateur de la propriété foncière notaire la notaire u réew mi la yeneen notaires yi ngay dégg aussi ay notaires yoo xam ni ils sont dans le privé mais notaire u réew mi la boo dànk jaaroo ci ñaar yooyu mënoo am suuf donc Sénégal nag tàmm nañ okki ba pare ñu régulariser leen loolu am na fi ba tàyyi mais en même temps aussi xam nga euh, dëkk faaw moom ay àll tu parce que forêt classée Euh, boo gisee ñu koy bàyyi ci dëkk dafa am lu muy dox ci wàllum climat mm. dafa am lu mu dox ci wàllu écosystème xoolal dakaar par exemple bi ñu jëlee zone de cartage tabax ci mm. moo tax inondation am tu comprends alors que boo demee ci dëkk yi ëpp ci mais euh, bois de Boulogne mooy partie bi gën a cher ci Paris mais xel xalaatul tabax fa parce que dafa bokk ci liy noyil dëkk bi mm. bref ah Central Park ah voilà ah, justement voilà day la xam ne mooy noël dëkk bi en tout cas daal de toute façon li am foofu pour man euh, responsabilité partagée la hmm. xëy na yéen amul leen kayit boo amul kayit foo amul kayit sañoo faa tabax hmm. parce que loolu aussi ça il faut Sénégalais aussi dégg loolu hmm. xam nga li ma la c'est-à-dire c'est bon de s'indigner mais nit ki fu mu amul kayit fu mu amul droit parce que boo foo amul titre foncier amoo fa bail amoo fa amoo fa suuf loolu aussi faaw ñu tàmm di ko wax suñu compatriotes yi. maanaam voilà maanaam il faut nga am titre de propriété bu lay jox suñu. Mm-hmm. mais en même temps aussi comme bàyyi na leen ba ngeen tabax. Mm-hmm. parce que ça c'est ça aussi le scandale dans cette affaire là. Mm-hmm. c'est-à-dire yéen a ngi tabax ñu leen di gis ngeen di réaliser ñu leen di gis et cetera mais la vrai problème du loolu. lan moo tax yéen bi ngeen defee bañ wax régulariser tout d'un coup rek. 38 hectares dolli ci li ñu dollee ko ci lu ñu war a régulariser 38 mm-hmm. hectares yooyu kan moo ko jël yéen bi ñuy jël 38 hectares yooyu fu ngeen nekkoon mm-hmm. yéen est-ce que bi ñu jëlee 38 hectares yooyu dañ leen ci sédd mm-hmm. lan moo tax 38 hectares yooyu fan la jógee ak lan nga ci xam. jéeme jàppal pour mën ci mën ci toll. Euh, xaaxaa xaaral euh, Habib yow da nga fekkee ni waxtu kii euh, Yérim dafa pointé du doigt deux responsabilités nee na leen ñoom ñi fàq dëkk. te yoruñu këyit di tabax di def say million foo xam ne donc këyit amagu fa mm-hmm. waaye it état bi fu ñu ne woon seetaan ba loolu mën a nekk comme yow ci wàll woowu ngay liggéey tamit naka la loolu ma nekk te ni ma la depuis le début ñoom impliqué nañ la ci dossier bi seet si la fekkee nga aussi bi président di promettre euh, nu mu mënee nekk comment c'est arrivé. jërëjëf euh, d'ailleurs di gën nuyuwaat di leen sant. Mm-hmm. Euh, d' abord di masawu coono waa Mbourkat li nga xam ne dal na leen. Mm. parce que metti na surtout aussi ñu ngi si couvre feu bi. Mm. ngay toj ay kër jàmbur. ñu mm. fanaan si mbedd bi loolu metti na. parce que euh, li may faral di wax rek euh, comme ni ko tubaab di waxee rek pour commencer il faut booy démarrer dara nga xool commencement bi. parce que yaakaar naa problème bi c' est un problème bu xam ne yàgg na depuis 2006 la. problème bu yàgg la boo xoolee lotissement bi sax boo xoolee.